sëriñ Béthio Diame sëriñ Saliou yal na fi yàgg te gën a wér waaw ñu ngi santaat bu baax sëriñ Saliou Mbacke moom sëriñ Béthio mu mel ni moom ni mu ko waxee rek màggalug sëriñ Touba gi muy ren gi di année deux mille dix-huit ñu demoon uti nag yi doog ñëw te am na ba tey yoo xamante ni ñu ci yoon bi di dikk ndax mel na lii ngeen fi gis kat li muy bari bari li ci des moo ko ëpp fuuf. Euh, ñu ñëwoon nag ànd ak sëriñ bi ñëw ngir saytu si li jot a dikk tey xaarit li des ngir mu ñëw lépp nag moom sëriñ Saliou moo ko ne moom sëriñ Béthio hmm. def naa sama màggal muy sag màggal màggaluk sëriñ Touba gi di màggaluk sëriñ Saliou mooy màggaluk sëriñ Béthio ndax moo ko jagleel waa ñu ñëwoon nag di xool si lii fi jot a egg tey xaar li li war a dikk waaw di ko ñaanal nag mu yàgg ko defal sëriñ saaliw ndax moom léppam day sëriñ saaliw moom sëñ Béthio sëriñ saaliw rek la gëm moom la bëgg te mooy léppam te lépp lu mu lépp lu mu am lépp lu mu doon sëriñ saaliw la ñun ñii nag sëriñ saaliw ñu digal ñu lu ci moom sëriñ Béthio te di ko tuddee doom moo ñu digal it ñu def ko muy suñu yitte waaw mooy suñu sëriñ mooy suñu la moom la ñu doyloo moom la ñu gëm te moom la ñu jébbalu àdduna ak àllaaxira te fas ànd ak moom faw di ko santale sëriñ Saliou waaw di ko ñaanal màggal gii ñu dënmal màggaluk Serigne Touba gi ñu dënmal te di màggaluk sëriñ Saliou te mu jagleel ko ko ñu yegg ci jàmm. te mu yàgg koo màggal. amiin ku jóg di màggal li yàlla màggal des na la màggal danañ la jiital.